عليك صلاة الله ثم السلام فطرى Baye Niass xam ne lii moom du man waaye Mawlana Cheikh Ibrahima dana ko daf may daf may may te daf may dimbale te daf may soulagé nga xam ne tamit de bu ànd ak Baye te Baye àndul ak yow moom li mënu cee am buñ la xoolee tamit gis yow Baye mënoo am ndax ñun kenn ñorul leen bàyyi gis rek moo leen ñor waaw yëpp Mawlana Cheikh Ibrahima kenn bàyyi gis bàyyi nag moom maanaam lu ko neex lay def rek kenn du ko digte kenn du ko digal mooy xool lu ko neex rek mu def lu ko neex. la rek. allah ñun moom ànd nañu yow fu ne gis nañ façon tertu bu nekk waaye bii moom daf ñoo ém li ci nekk ci doomu aadama ñiy jël ay jakarta ñiy jël ci ñiy war ay fas. ñii fas yéene daw ay kilomètres ba fi ñu la war a dalal loolu lépp lan lay def ci yow tey jii nii. waaw marqué na ma trop sax marqué na ma trop trop ma doon loo xam ne nii daal bàyyi bàyyi mooy wanee ci mëninam rek def nañ ko daaw wax dëgg yàlla waaye ku ñëw daaw ñëw ren tamit nga xam ne ren yokkute bi ci nekk gisuñ ko ci woon daaw da am mbiri Cheikh Ibrahima Niass moom sant yàlla rek nag wax dëgg yàlla parce que man defaluma ah, ma ko waxee dañu jëlaat mooy baax ak am diine ak bëgg Mawlana Cheikh Ibrahim Niass ndax daf cee juddu màgg maamam liggéeyal baay ba maamam di si karal baay maamam ba muy dem ba bàyyi dem dem Medina maamam la àndale zikar si da koo na ci maamam maamam bu mu saan zikar booba ay da xale la day tëdd di jooy te booba doonagul zikar kat ndax mi maamam di génn àdduna booba ay da zikar ah, yàgg na booba ndax mën naa ne fii ne gimmee daal dëgërul dëgër na waaw ndax euh, lépp lu mu am euh, lépp lu mu xamoon nañ koy waxee fii la ko amee ci kër gi ndax booba xale la xamul dara ba maam ji daan si kër mu tëdd fii ci suuf di jooy ragal nit ragal bëtu àddina moo tax bu toogee bay si kër damay jaaxal bu xew amaan su ma ko solalee ba mu génn day tëgg sëgg ci suufu taabal ji ne du génn doomu aadama yi di ko gis moo tax bu ñu tey ba muy toog àddina di ko yeew ma xam ne baay amul moom. moo leen yar moo leen nàmpal ndax dama am seex yu góor yàlla weddi ñu dund tuuti dem ñu am seex yu jigéen yi. bañ juddoo ba tey du ma leen fab du ma leen nàmpal du ma leen boot mooy fab mooy boot mooy yóbbu hôpital nit ñi sax dañ ñëwoon moom moo leen jur mooy couche mooy sang lépp moo koy def dafa ma ci dara ba ñu juddoo amaguñu trois mois laa commencé tukki bàyyi leen ci kër gi mooy def lépp moo yor kër gi mooy def lépp mu wane mu ànd ak. asalaamaaleykum wa barakaatu ñu ngi nuyu internet yi di nuyu mbokk taalibe ak fu ñu nekk ci di jiital ci nuyu boobu alxalifa Mawlana Cheikh na Ibrahima Niass di ko ñaanal yàlla fa mu gudd loolu ànd ak wér alhamdulilah laaj nga ma laaj boo xam ne bu ma neex la eh, ma degg tam ci sa biir wax nga ne jigéen buñ ko doon laajte njëkkee ci borom këram dafay jaaru dafay am solo waaye mun naa laa wax ne la ay da képp kuñ ko laaj ci pays Cheikh Ibrahim bi mun ngaa wax ci moom ndax njëkk muy suñ soxna suñ mbokku taalibe la te kuy taalibe Baay rek xam nga ne Aida moom xaadim Cheikh Ibrahim radiallahu anhu mi ngi bay waaram ci tool bi te di mi ngi koy rafetal itam ci kulli fànnin rafetal na ko ci baatam rafetal na ko ci jëmmam rafetal na ko ci yaram rafetal na ko itam ci ay tegginam dana la wax benn anecdote man nag bokkuma ci ñi nga xam ne ñoom dañuy suul jëf wala ay lii dama ko yónni sax wala nangam déedéet daal na am ay jamono su ma njëlbeenu faydu fii ma maa ngi Cambérène lu mat weeru lëmm doo mën a am téeméeri dërëm te sama kër keroog bu ma gënee ñàkk keroog lay gën a lekk lu ma neex te loolu moom moo ko def ndax jamono boobu moom la yàlla dimbale mu ngi commencé jóg def ay programme di am dara maa ngi fàttaliku benn jamono boobu beneen néeg laa amoon yoreel waa ji fukki di fay cinquante mille dem naa ba yoreel waa ji ñetti weer ayda benn chaîne or bu mu jëloon Angleterre dafa xëy na ma damay dem ci leen ma ne ko loo fi tu mu ma dafa am lu may lijjanti ndeke chaîne bala dem jaay ci guddi gi mu compté xaalis boobu jox ma ma jox ko borom kër gi yàgg naa ko wax ci samay interview ne man man damaa métti noonu la ma yàlla bindee damaa doy waar damaa tàng jër waaye ku dimbale la ay da bu fekkoon tey sañ naa wax mun naa wax ne tarixee na ma ci benn côté bi te loolu sax mooy dëgg muy soxna soo xam ne wax dëgg yàlla toujours dama koy wax ne ko benn problème nga am mooy ñàkk problème ñàkk problème rek mooy problème mu Aïda loo wax mu ne grave parce que moom yàlla daf ko dimbale kon daal ci gàttal ay da nit ku baax la mais li ma ci gën a neex yëpp taalibe baay la ndax ni baay bëggee taalibe mel nii la ay da mel parce que maa ngi comme dab rek ñoom su ma leen waxee loolu xam nañ la may wax man xam naa li may wax waaw ay xale yu baax xale yoo xamante ne bàyyi ngees rek lañ bëgg ndax loolu lañ àndee ak ay da ay da tarbiwu ca kenn ci ñoom wala boog sax ci jamono yii lay doon mais ña ko jiite ñëpp amu ci kenn koo xam ne tey ayda da mooy sëriñ mais dañoo tànn saydaa ndax ni muy tuddee yàlla ndax ni mu bëggee Baye ñu ànd ak moom di liggéeyal Mawlana Cheikh Ibrahim radiyallahu anhu waaw moom si ay zikaram ba koy fal di mokkal lu bëree bëri lépp lu mu zikar dama ko daan mokkal farlu moo ñu boole woon ñu nuyu wante seq teraanga ba fi ma toog di wax ak koo xam ne la depuis bi ñu tàmbalee ànd ba léegi lépp lu mu dugg man dinaa yëg waaye itam man tamit lépp lu muy dugg dina yëg mu nekk suñu yaay nekk suñu jigéen dëgg-dëgg nekk koo xam ne ku baax la faydu moo ñu boole ak Cheikh Ibrahim radiallahu anhu mënoon naa ñoo di zikkar du defar muraayam mënoon naa ñoo di zikkar di am neneen num doxalee waaye boo ko ñëkkee gis moom Zeyda yar ak tegg di nga ñëkk gis si moom ñun ñëpp ñëbbat Cheikh Ibrahim ñëpp képp kum si gis mu ngi sukkandiku suuf génne na addiyaam jox la te Zeyda ko rafet jikko rek kon nekk ñëpp mën nañ ko roy ci jikkoom ci waxam bu dal ci doxin bu dal ci zikkaram ak ci yar ak tegginam bu nga xam ne moom moom lay doxee ci pay bi loolu itam moo tax ñëpp bëgg ko mais du question zikkaram wala nangam waaye li jiitu ci ñu ko mooy yar ak teggin te loolu war nañ ko mën a roy ci moom bu la yàlla boolee nag ku mel ni Zeyda da ci yar ci teggin ak fi ko yàlla yóbbu ak ni ko bàyyi ni yàlla gërëmee liggéeyam muy muy liggéeyal yàlla ci mboolem alam bi yàlla boole ci mbooloom duur na yaa ko tànn yàlla rek moo la ci boole bu la yàlla booleeg moom nag li jiitu mooy na nga dëggu ci mbooloo mi na nga bëgg na nga dëggu li bàyyi waxoon ne mbir mi bëgg la ak dëggu ak fiir nit ki soo àndee moom da ngay fiir waroo gis keneen ku dul moom moom rek ngay àndal ndax moom ngay fexe dooleel ko te dooleel Zeyda da mooy dooleel Faydu ndax ci Baye la nekk dooleel ko itam mooy dooleel Cheikh Ibrahim li am dafa ñëw saxaaba yi ay naafeq nekk seen biir yom sallallahu alayhi wasallam bàyyi leen laaj nga alal pour ñu indil la ko ñuy joxewuñu ñuy joxe nañ ñuy bëgg nañ yàlla ne buñ joxewu dinaa la utal ñeneen nit ñoo xam ne ñooy ñëw jël seen place joxe kon yow miy ànd ak Zeyda wala bëggoo wala wala fiiroo ci moom demal rek nga puus boo puusee tuuti ñeneen dinañ ñëw bokk ci mbooloo te loolu ñun xam nañ si dara ndax ñu bëree bëri ñu bëgg bokk si fans club bi kon fans club la boo xam ne xam-xam moo si jiitu ndax ay dara fi am fans club boo xam ne la yar ak teggin moo fa jiitu ndax ku xam Zeyda xam ko ci yar kon daal booy ànd ak Zeyda Yada ak koo munti doon jiital ci dëggu ak bëgg ñi jiitu ñu xam ne ñoo jiitu ñu jox leen cër jiitu ñi ci topp itam ñu xam ne ñoo ci topp bu ñu laaj cotisation ñu lépp lu ñu laaj ci ñu joxe. bu ndaw rek ci moom euh, jamono yu yàgg la ndax 98 la jamono boobu mën nañoo wax ne xëy na mbooloom Cheikh Mamoud tolluwul woon nii mu toll tey macha allah bés ñu daje ci këram HLM. Euh, amoon kenn ci sati Mawlana Cheikh Ibrahim Niass radiyallahu anhu ku fa ñëwoon. Euh, am ñu mu àndaloon ñu ñëw seet si Baye Cheikh Mamour Insa mu ngi woon bés boobu ñu doon euh, sikkar euh, bi muy sikkar di sikkar ba ci digg bi ah mu ne nag yaakaar naa ne oto bu amul essence bu doy du mën a dem waaw bi mu waxee loolu sëriñ bi fi mu toog moom Baye Cheikh Mamour Insa daa di ma woo ma ñëw mu ne ma demal nga wax soxna Ayda na sikkar bi ma ñëwee ci soxna Ayda mbir mi xaw na koo jaaxal. mu ne ma waxal ma soxna ay Ayda mu sikkar soxna Ayda ne ma ah man ma ne ko ah, sëriñ bi nee na nga sikkar ak xaal gi ma ko ko waxee wax dëgg yàlla ba mu jëlee micro bi départ rek macha allah bés boobu li ñu yëg ci yàlla kenn mënu la wax nu mu toll bés boobu la njëkk sikkar ci kanamu Baye Cheikh Mamadou Insa. waaw 98 la woon 98 <clears throat> ak léegi ñaar fukki at ak ñaar macha allah comme ànd bu yàgg la macha allah. Euh, man itam yàlla dogal yemuñu foofu waaye yàgg nañ di ànd ndax jamono yooyu daan na ànd ak man di sikkar ñu koy aw macha allah ñu koy aw daan dem ci yenn programme yi boobu jamono demeewul nii euh, nii taalibe baay yi bëree nii euh, melul woon nii bu njëkk waaye alhamdulilah ci ay sikkaram itam ah man de gis naa ne mu ngi def jeexit bu mag ci xoli jaam yàlla yi ndax bëri na ñoo xamante ne yàlla jaaral nee na seen dugg ci pays bi ci loxo ay dafay moom nag mu doon ko particulière macha allah doon koo xamante ne am na jagle ci sëriñ bi am na jagle bu mag a mag a mag a mag wax dëgg yàlla te tamit beneen yoon sëriñ bi wax na ci làmmañam ne sikkar si ay dafay di sikkar sikkar bu mu am digal la waaw man daal xam naa ne li ma koy digal rek mooy di ko wax ilal am waaw macha allah ci kanam rek góorgóorlu te xam ne yoon wi moo mel noonu dana metti ndax mbiru yàlla ci boppam du dëkkee di neex rek daal waaw waaye nag góorgóorlu te xam ne macha allah lu nekk rek incha allah boo góorgóorloo rek dana ko ko jot incha allah yàgg na incha yàlla dina fa àggale. nit bu am taalibe nit bu am kóllëre ko fa sellal ko nandal ko mbootam xam-xamu ilaaya ñu daal koy te bal mu jàll laaxu laa la woo bilaayi maa ko wóolu leeram ko xot jàll fay jabaru bala amee jalaal ba kun fal ngay waaja ñu jël ndampi nga léeg-léeg jox baraama képp ku am nga ne lu moo la xaajal léeg-léeg nga jàll pay mala ko bala mate ba moo timin ka ma samanke moo doonu hmm. taaxa mooy borom basiira ku ñëpp xamoon la min ka ma sayiru léeg-léeg nga jàll ijaabul maari fa looloo waral kum yar nga nekk ab aari ba ba la daal di un mois la am liir un mois ñu war a zikar barxam sidi barxam hmm. ñu am gàmm seyda ay de meew la jënd bàyyi doom bi ak Cheikh Koné bàyyi ndaw ñëw fanaan si gàmm dama koy xool sax dama koy yërëm ma xam ne kii wóorul bëgg rek ak liggéey Mawlana Cheikh Ibrahima loolu dafa doon mën a dimbali ci doomu mu nekk lu doy waar waaye ndaw tamit nekk ci baax ku ko jàppale ndax euh, téye diiru un mois bàyyi sa soxna bu dem fanaani gaaw loolu yombut waaw su ko xam ne aussi ndees la kon nga xam ne ay ba jàmbaaru Mawlana Cheikh lu ñu mën a wax daal lu jàmbaaru Cheikh Ibrahima yi mu naaj mu sedd mu taw ko ngir Mawlana Cheikh Ibrahima yàlla dëgëral ko te ñëpp a ko war a jàpp daaw defaloon nañu tuddee ñu ko ma waxoon leen man leen lépp luñ oote ci ay dafay rek man dama cee bokk dama cee bokk ndax coloré démb dama cee bokk ndax jëkkëram suma xarit la dama cee bokk itam ay da ko bëgg bàyyi la te daanaka wax dëgg yàlla daanaka amuñ ci sax dara du ci jëlee dara day def taalibe dañ koy ow des fois mu dem ci jotaay moom mooy paas dem ñu yëkkati ay quinze mille franc vingt mille franc jox ko du am sax lu mu ñibbee waxuma laak du ci am lu mu teddi ku ñeme sonn ci Baay Ñas la dama ko def xultu lu bëri ne ko ayda booy demati di laaj xaalis man monsieur Abdou xam nga bëgg bàyyi rek a tax xataa man sama soxna si ba ñuy tudd daaw dañ jékki-jékki rek ayda fay ñëw ànd ak sëñ Fallou. def fa lu mag te du luñ leen defal mais mu ne Abdou Ndaw dafay ngénte musuma dem xewam foog ma bett Abdou Ndaw ak jabaram suma xarit la mu ñëw xam nga loolu nekkul lu nit di fàtte nit dafa bëgg ko ko yëg ay da ñëpp la yëg taale baay bu gën a ndaw boo ko invité mu dem te tey loolu te am na ñu bëri ñu ci waroon jàng am na yenn nit tey pour nga déplacé foog nga fay leen lu bëri côté yëpp nag yenn sëriñ yi pour ñu déplacé foog nga fay leen lu bëri yenn sikarkat yi foog nga fay leen lu bëri yenn taalibe sax foog nga fay leen ñu bëri ñu doog a ñëw te moom lépp day def ngir yàlla ku mel noonu nag buñ koy defal jotaay te moom créé wu ko ay nit a ko jotaay pour fàttali ko du lu mu utee xaalis du ut dara. te sikkar rek la ñuy def bu fàttali fàttaliku yàlla tudd yàlla sant yàlla gërëm yàlla ci may gi leen nekk taalibu baay te loolu lañu àndeek Aida wax dëgg yàlla duñ def lu dul gërëm leen sant leen di leen ñaan yàlla yàlla yàlla may kàttan sonn ci papaam bëgg ay rakkam dañuy wax ne tegale bu jubee rek ba jiitu la mooy taawi papaam waaye uuf na ay rakkam àtt naa sonn ci ak ay rakam kon dañ koy ñaanal yàlla fa mu bëgg a yegg yàlla ko fa yàlla yeggale yàlla bàyyi ko ak ay rakam mu sol ko ci cat ak ndog yi lu man ren it yàlla mën déwén lu ko ëpp di sant tamit fant sa club ba mi ndax ki bëgg moo la sonal waaye ki bañ daf laa noppal ndax ñu ngi càkkuwante moom lu métti yàlla rek moo leen boole ak seexal islaam bàyyi mi leen moom nag yar na leen fayal boppam ci barkeb Seyda sang ba ci nekk. jigéen la waaye ci sàppe góor ñi la nekk muy jigéen joo xam ne daal li ma xam ci moom xam naa ci moom mbaax xam naa ci moom yaru xam naa ci moom mën a maslahaat jaami yàlla yëpp Seyda Aida Mbaye nag gannaaw ba mu nekkee julli nekk tijaan nekk taalibe Cheikh Ibrahima Niass rafetal na jikkoom ànd ak bépp mbindeef yàlla. faydu bi gis nga faydu bi ñi ñaa ngi ci nekk waaye mosoo dégg Seyda Aida dina moo juteeg diw wala moo wax diw nangam wala diw ko déedéet ku mandu la ku mandu la te yàlla wax na ne idilu wa aqrabu li taqwa mandu mandu moo gën a jege ragal yàlla te Aida ku mandu la kenn mosu koo dégg ci yëfi caaxaan ak loo xam ne la fi mu zikkër si nga xam ne mi ngi koy def tey jii dem na ba nga xam ne sax ci zikkar si bëri na ñoo xam ne tarbiya nañ Seyda moo tax ñoo tax ñi tarbiya xam naa ay nit ñoo xam ne li tax ñi soobu pour bëgg tarbiya Seyda lañ dégg mu zikkar zikkaram neex ñi xamemee ci faydu bi ba ñëw ba tarbiya gis naa ay nit ñoo xam ne Seyda moo tax ñu nekk jullit ñoo tax ñu nekk jullit dem naa këram benn daaw daawati jéeg gàmmu 2019 wala gàmmu 2018 mu wan ma ay nit ñoo xam ne ñu nga dëkk ba maali wala wala Niger ñoo xam ne duñ woon ay jullit waaye dégg gi ñu dégg zikkari Seyda Aïda Moubaye moo tax ñi tuub pour dugg ci lislaam ba nekk tijaan ba nekk taalibe yàlla moo def ma bëgg ko moom itam mu bëgg ndax bëgg gi ma ko bëgg moo tax mu nekk sama jigéen tey jii li ñuy wax njëkkee ci Sénégal man tey mën naa wax ne Seyda Aïda tey sama jigéen la sama jigéen la bokk na ci sama njëkkee yi nga xam ne sama soxna bu amee doom mooy ñëw uuf ko loolu nag dëgg-dëgg yàlla moo ñu boole te àndoo gi ñu àndoo yàgg na du léegi mën naa wax ne 2002 2003 la ñu yàlla boole woon fii ci seen kër googu ñi nga xam ne moom la ñu defee programme bi foofu la yàlla boole woon ñu ñëw ci moom ba ni ñu fekkante ci Cheikh Mamour Essa ba bési tey bi ba tey jii. waa fan si club bi man ci laa bokk fan si club bi man ci laa bokk bokk naa ci duma président bi waaye daanaka jege naa président bi. lool ci ci man du ma wax ne bu ma nekkoon président ma ne may number one waaye ci fan si club Seyda moom man maay number one waaw moo tax ba ñuy jaay carte yi daaw jëg dama ne man maay njëkk jënd ndax man maay fan si club numéro un fan si numéro un Seyda Aïda Moubarak alhamdulilah wasalaatu wasalaamu ala rasulillah seydina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man wala di wax rek ne bu pour ñu joxe ay seede ci soxna Aïda du nekk lu jafe ndax daf di mbokk Euh, di doomi Medina juddoo Medina ñun nag ñu mat seede ci moom ndax bàyyi nee na woon tigi ca Conakry gor tigi ñu ngi koy xamee ci biir tukki yàlla boole nañu ñu tukki ñu nag moom ak Seyda Roqee Ibrahim Niass ay yoon mu ànd ak moom ñu fekk si ñu Angleterre ci gàmm gu ñu fa daan def am yoon bu njëkk ba rek Seyda mu ne aéroport lañ toog am xale bu ñëw nuyu ko nuyu Seyda ne ko man ne soxna Ayda mii moo tax ma nekk taalibe Baay yàlla may na ko loolu ñu jaaree nañ ci moom dugg ci tariqa bi jaaree nañ ci moom dugg ci fayda bi mu feggoog jëkkëram joo xam ne Seydi al muqaddamul baraka Cheikh Abdoulaye Ndaw ñu bëri ci xale yi moo leen yar yéen sama doom yu jigéen yi na ngeen rëj rëjloo ak góor ñi ci sàkku kawe ci sàkku mbaax lépp lu ñu am ci lu mbaax yéen tamit da ngeen gëm ne war ngeen ko am waaye waxuma rëj rëjloo yu jëmm rëj rëjloo jëmm nag bokk ci ndax ku fegu la ku te làmmiñam la ku bëgg yàlla la ku am diine la model la daal boo xam ne ñiy bootu ci moom muy fan si club bi bu ñu royee ci moom jikko yu kawe yooyu incha allah seen àddina dana baax seen diine yéwén danañ nekk koo xam ne ñoo gën ci seen société gën ci seen entourage gën ci diine ji gën ci gën ci fayda bi ñi ngi ñaan yàlla yàlla dimbale leen seen kàndoo bi yàlla bu ci seytaane am benn cër